CAPEY mu nekk li nga xamante ni bi mooy transfert d'argent bi gën doomu réew mi moom ko ñuy woo sénégalais yépp ñu daal dee daw wutali ko parce que CAPEY du seen moroom nuroo wut ñoom bokkut ak ñoom i feem CAPEY ca kaw ca kanam incha allah jàkkaarloog wal fajri moom boutique solution nag mi ci garab yu baax yi di jaay ay garab yu baax a baax dugg ñu nag ci njaayum parfum kuy jaay parfum kooku sunu ngañ ca moom waaye daal di wax ni boutique solution la nga xamante ni bii moom lay def moom mooy ay garab lay jaay ñi nga xam ne dañuy jël suñu kàddu di ko dugal ci mbirum ay parfum yooyu di ko dugal ci seen i TikTok ndekete ñi ngi may pirate eh. ma ne ñooñu bu fekkente ni bii ñëwuñu géew bu yeboo ñu xam ne danaa leen def lu bon parce que am na loo xamante ni bii jaaduwut rafetul jël kàddu nit ki di ko jaayee waaye boutique solution macha allah ca kaw ca kanam bi nga xamee ni sa kàddu mënta jaay nga bàyyi njaay ma taw bàyyi kii yow laay kat gi ma ndagaatal bi <laughs> bu jigéen Diop Dieng Sall maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay ajaratu di la ziar bu baax a baax. est-ce que bii pas du moom maa la tooñ. non garaawul man xam nga lii miis naa ko man am problème man luñ ma wax rek <laughs> maa ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal euh, jàmm. di nuyu Omar euh, tey moom moog Assane Blanc la ñu wootee. mooy ah, jàmm laa paix macha allah rafet na lool. Euh, di nuyu son bu mi nga xam ne tey daal ma nga ind moom itam maa ngi koy ziar bu baax a baax. waaw lii nga sol yëre ind. non non lii jógee nii la <laughs> nag. Euh, yow foo jógee yow. bawal xanaa France France nga jógee sa gërëm France. France déedéet lii moom France trop France la lii moom mu teg ci boppam. déedéet lii mu teg ci kaw nii France France koy teg France yee ñu teg ah déedéet bi may wax. ma ne boppam bi lii mu ci nekk nii lii ci français laa koy gis waaw boppam bii lii mu ci nekk nii France laa koy gisee waaw xam nga lii ne ci boppam bii nii vraiment kenn xamul karaw lu mu doon nii saa boobu na xam ne tey bu ma seenoon zone rek mën naa ne sama xel day dem si président Abdoulaye Wade ndax bleu bi di nuyu nag mboolem téléspectateur ak internet yi man dama am dal ma jigéen mi am na ba tamit da ngeen koy comprendre ba am problème ah, ma. nuyoo ah. daa yàgg de. maa ngi dina yàgg parce que yow yaa di wax. donc ajaratu maa ngi ñaanal sëriñ Sidi mu sëriñ Abdoulaye Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak lu weer defal ko jàmm defal ko njabootam gis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi si biir réew mi yëpp ajaratu. amiin yaa rabbi ñu ngi lay jaajëfal ay ñu dem jëli victime du net jëlal sa temps nga wax. waa bu ci yokk leneen lu ci bokkul ay ca. ah dama ci yokk leneen. ci nga dëkk. d'accord am ah, mën naa am ñaar tey mën naa ñam ñaar. amoo ñaar bàyyi sa aaral gi nga nekkee. d'accord c'est bon <laughs> jërëjëf El Hadj juuf tey li ñuy waxtaanee incha allah muy wal fajir la ñuy jékki gis kenn ku bokkoon ci ñoom ci moom. jànge fi lu bari amee fi expérience bu baree baree baree bari jël kër googa dajale leen ndax dafa am ñu mu mere ci kër gi wala ndax dafa am ku mu mere ci kër gi ba tax na mu toog fa mu toog di wax ni kenn la ñuy liggéeyal muy Ousmane Sonko te kooku ñuy liggéeyal bu gañe woon réew mi daanaka mën nañoo soppi Walfu def ko RTS ndax ñi fi nekk ñu bari tudd na ay métiers yu baree bari nit ñoom ñëpp ñu ci baree bari gëmuñu dara xaalis bi leen booy di jox képp moo leen boole kii bi ñu dem déglu ci détail bi. après bu ñu ñëwee teg ko ci taabal ji xool ndax moo xamul li muy wax wala ndax dafa laaj jubbanti ñu dellu si waat. j'ai jamais vu ay militants yu gën a naïf patriotes yi c'est-à-dire ñoom il suffit nga leen Ousmane Sonko moo baax ñu commencé bëgg la ma vues yu tey jii ma soo fi nekkoon tey ñaan Ousmane Sonko baax kon maa ngi ci ay 2 millions de vues. j'aime j'aime yi doo dàq kër yi di daw. Mhm. parce que patriotes yi ñoo bëgg ku leen nax. ñooy ay naïf ñoom ñoo naïf comme seen comme seen njiit boobu léegi ay journaliste opportuniste mhm. ay mercenaires sans foi ni loi dégg nga ay tueur à gage ay killer <laughs> ñoo ci dugg pour am tout ñoom ñii ñëpp mais Pape Ndiaye kan moo ko xamoon avant affaire Sonko kenn xamu ko woon mhm. comme li nga wax affaire Adji Sarr la jël mhm. fàttu ñu si xeex ko lu ne mu yàq ko ci tout nga di defaan benn benn benn côté ñu ñu jël wal fajari def ko léegi télé Sonko télé euh, nekkatul télé askan wi. Mhm. nekk télé télé opposition te bu ñu nee opposition pas toute l'opposition télé Sonko exclusivement. Mhm. ñoom ña fa nekk ñëpp équilibre doo ko fi gis impartialité amu fa. Mhm. ñoom ñëpp ils tirent dans un sens. animateurs yi comédiens yi waykat yeeg ñoo ña fay moom daal ñëpp ku bëgg Sonko. dama lool fa mais xam nga loolu c'est très grave. pour un organe de presse. nga dem taxaw jël jaay sa bopp benn benn benn homme tout simplement parce que tu espères que c'est euh, deux choses. Mhm. Dans l'immédiat, euh, tu as euh, les clics des patriotes, mm -hmm. YouTube de la faille. Mm -hmm. Maintenant, dans le long terme, Boussonko n'est compté du président de la République du Sénégal. Mhm. mais kon loolu fa jëri mooy remplacer RTS. ak ña fa nekk ñoom nekk ay multimilliardaires ci ay journalistes yoo xam tekki ñu dara. Mhm. donc tey aujourd'hui li daal nii man man. quand j'ai vu cette affaire de de de de de de kii de Pape Ndiaye ñu naan nañ ko fay ak daay nangam nangam kenn fayu ko dara. Mhm. il essaie de retourner sa vest parce que gëm suñoo gëm dara kenn su ñoom ñii di wax ci yow Sonko ñii ñu ko ci gëm ñaar ñett. Mhm. dañ soo profité pour am na notoriété profité si pour euh, euh, euh, jaay seen ngor. patriotes yi di leen yónnee xaalis léegi nag ils ont senti le vent tourner. Pape Ndiaye dafa am courage nii rek man man lu ma respecté suma mooy am na courage tax ñoo taxaw carrément wala ne si mën a yërëm. waaye. voilà mi ngi noonu kii la ñu indi tey comme di net ndax bari na ay eh, am na sax ñu ne ay accusation la def am ñu ni wax ju ñaaw la am na ñu ay sos la waaye lu mu ci mën a doon. Eh, daal wax na ay kàddu yu bare bari man nag Aïssatou nee na su doon wax ci Ousmane Sonko lu baax ba léegi mi ngi ci 2 millions de benn vidéo bi ma mas a gis te mu doon wax Ousmane Sonko guerrier la mooy jàmbaar opposition bi ay tapet lañ ay boqat lañu boobu doon na tàgg Ousmane Sonko waaye boo demee ci vidéo ba wax dëgg yàlla yaakaar naa ne amul sax 100000 de vues te 1 million de vues boo demee ci kii bi mi ngi war a nekk ñaar fukki un million ñaar fukki 100000 de vues la war a doon moom benn sax amu ko ci te nee na su tàggee Ousmane Sonko dana am 2 millions de vues kon loolu ay wax ju juuno la yoo xam ni mooy loolu kon. Omar foofu la ñuy dooree ñu xool am def na ay accusation nag nee na Pam Ndiaye dafa retrouver vesam xam nga rek léegi ñii nangam ak sàngam ñoom saa njógu ñeeg ñoom bétti ñi nee na daal Ousmane Sonko euh, mi ñuy topp ay vie lañ bëgg ak ay buzz ak xaalis ak yéen sax lay wax yéen euh, lay wax nee na yéen ñëpp loolu ngeen di def. Mm-hmm. Euh, il fa que nag ngeen leeral ba xam lu ngeen toppee Ousmane Sonko ak lan moo tax ngeen jël seen métier mi dem tey la ko Ousmane Sonko. Mm-hmm. waaw surtout <laughs> Diop ah? waaw waaw di nga de dañ daan wax naan. Mm. boo lekkee ci ndab ubal ba mu jekk teranga la boo lekkul ci ndab ubal ba mu jekk teranga la mu ne ndabal wal fajri moom da ci sukk ba jekk mu noonu na nag ub te dem bàyyi teranga ji wal fajri waaw parce que nit boo nekkee ci mbir mu jariñ la lu ne yóbbu la fu ne xam naa Aïssatou Diop Fall jii boo ko déggee mi wax jàngaluma ko métier mais bu demee ba mën a wax ci rajo wala mu toog ci télé nag gërëme Walfadjri ndaxte bu dee baat bu neex ak mën a wax bu noonu tànn rek ku mën a wax ak baat bu neex du toog ci télé te du wax ci rajo kon na gërëm bu baax Seydi Lamine Niass waaw Seydi baax dëgg waaw man loolu laa gëm mhm. ma nag du journaliste parce que jàng na ko mais bu nekk bu doon bindkat la ñu ne ah presse écrite mais ci côté wax dee baax rek mhm. kon tey jii mën na wax lii mhm. beneen bi ci topp mooy dafa ne bu Sonko falu woon dañ koy xalamal pour bu fal woon ñu nekk ay milliardaire Macky Sall mii tey jii jiite réew mi dama koy njëkkee ci Abdoulaye Wade Abdou Diouf demoon na ba foog ni Walfadjri dakaa contre bi Abdoulaye faloo lan la jëriñ Walfadjri dara ak ay liggéeykatam lu dul coono bu dul jeex tey jii Macky sàll demoon na ba ñu bari jàpp ni Walfadjri Macky lay jàppale contre Wade li Macky teg coono Walfadjri Wade sax tegu ko ko kon ça veut dire que waxi démb ya ak jëfi démb ya rek day tontu ay kàddoom tey mooy wane tey bu fi Sonko toogoon tamit du tee Walfadjri doon ko mu doonoon loolu moom du doon loo xam ne day soppeeku waaw ah, parce que institution la parce que da les hommes passent les institutions demeurent maanaam nit ñi mën nañ di dem mais jëmm ji moom ba tey ji dafiy des di fi ne mm-hmm. moom mooy Walfadjri léegi nag des fois wala dañuy faral di wax naan ku bëgguñu dégg la da ngay tooñ ku ñëpp xam. waaw waaw parce que kenn déggatu ko aussi waaw. fa mu nekkoon bu dee day mere ñam mere ña ko jël yóbbu ko frigo ba muy bëgg a congelé ci frigo bi. frigo bañ ko dugal sax daal dañoo fay courant bi dañ ko coupé. waaw frigo bi congelé wul. kon tey bu amul li muy wax ña ko wax ñooñu. Hmm. moom Walfadjri teraanga rek loo ko defal hmm. teraanga rek. bu ko keneen nobee ba mën ko jëli takk ko téye ba tey jii mu koy dugal ci frigo Walfadjri moo tax. wallaay wallaay si dee teg fu ko kenn tegul. te ba mu jógee ba Sidi ba tey ji eggagul fa mu eggoon jaar na fu ne nag mais foo ko Sidi tegoon ba tey ji kenn tegoogu ko fa loolu nag teraanga ji ko wal Walfadjri defal même bu dul jëmi Walfadjri mu rusee ko Sidi mu ko defal li ko kenn defalul d'accord foofu rek laay teg incha allah bu xajee rek ñu dellu siwaat wax nga dëgg ci wàllum wax ji am naa sama benn jigéen bu ma doon conseillé ci wàllum wax sax moom média lay def ma ne ko soo bëggee percé dangay ngay bàyyi e, e yu ay sat jóg faal yi da wax lu ñu xam rek waaye e, e, e yu kenn xamut loolu moom yàlla nañ musal ma jigéen ay satu de waxati na wax ji nag am na ay sos yi ci man suma ma ci li ma xam ndax man fii laa ne ci kër gi alaaji mii su ma daan yónni may dem paas bi may jox ni ma paasal dem defi reportage ci laay yem kenn mosumaa jox sax per jum su may dem ci kii moom nag nee na gars yi dañ leen di jox xaalis gars yi passé fi ñooy jox xaalis kii pour ñuy waxal sonko yooyu daal la wax te yaa ci biir Walfadjri ndekk yéen li ngeen fi nekk yëpp booy sonko yee leen yor. jaxate moomu. <laughs> daanaka sorewuñu parce que alaaji maa moom def nañu l'émission des émissions ñu wax ay wax yoo xamante ni ñaaw la donc ñu jël leen sax ba ne ñoom daam naka léegi ak nit yi sax yematuñu donc mm. suñu demee ba mel ni Adja maa ngi lay laaj léegi ndax Pam Ndiaye ak euh, Aysatu fekkante nañ ci biir kër gi bi ma bi ma waxee waaw sama xel daa dem ci ne nit de même su ngeen bokkaan bërëbu liggéeykaay bañ na ko ba nit ñi léegi dañuy wax bërëb liggéeykaay yi ñooy seen deuxième maison même su ngeen demee ba bokkatoo leen fu ngeen nekk gis nga ni nit kii kat def na loo xamante ne nii yow gis nga ni jaaduwul woo ko ndànk si ruq ngay ngay yeddu ko parce que jàpp naa ni war ngeen koo sëkk donc su nga demee ci pénc ma ne nag ba di wax nit ki ci jëme boppam bu kaa ngay jël ñeneen ñi di leen si di leen si la di leen si laaxaale te ñoom seen yoon nekku si ñi nga dégg ñuy wax ñëpp si affaire Pam Ndiaye déggoo ko si wax ba tudd si saanjoogu wala nga tudd si bëcc wala keneen ak keneen bëgg a maas noonu gi ne ñoom ñëpp ñoo yem te ñëpp yemuñu leneen li mu wax ne genre ñun nit ñi dañu topp Ousmane Sonko pour am ay vues moom saay su xëyee su Ousmane Sonko lay wax même buy dee wax si beneen sens que ni buggul ànduwul ak moom wala mi ngi koy critiquer da koy jaral mu dem si yeneen i télé du fa toog te nit yi dégg ko il faut mu wax si Sonko kon donc moom tamit sorewul ak ñiy wut ay vues n'est-ce son yu bo en tout cas daal am na lenn loo xamante ne nii nit bu koy wax wala mu koy def bu yàggee rek da ngay daal di nduruug ak ki ngay bañ. d'accord incha allah laa dégg hmm? ah, nga. tooñ ko fii. laa dégg nga. Hmm. Hmm? nee na nga bàyyi. xam nga xoolal maa ko dàq ruube li ngay def. Ah, waaw waaw ah, waaw maintien maa maa ko dàq ruube foofu. ci li ngay def yaa fi dàq tooñ. waaw boo seetaan. yaa fi dàq tooñ waaw maintien on gère. suba la koy fayu booy nga bàyyi ko xel. waaw moo tax ma ne ko maa ko dàq ruube. <laughs> da ngaa saay saay. <laughs> ah yow di man borom ñaari galon nga toog di ma wax li ci pénc jërëjëf. noo gisee Aïssatou li mu leen wax. <laughs> li wax ñan. yéen waawal Walfadjri ñëpp. ni nga ma koy laajee ñëpp ñëpp animateurs yi ñun ñëpp. de. Hmm. Eh, xanaa daf ñu daf ñu bëgg tooñaale rek mais bu fekkee ne am na am na ñi mu bëgg waxal mais na waxal na waxal journaliste yi que na waxal ñiy def plateau politique ñoom Moustapha Diop ak ñeneen ak ñeneen bu dee dafa am ñoo xamante ne ñoom la bëgg waxal mm. mais mais mais gisul benn animateur bu toog di xalamal ki que ce wala Sonko wala keneen ak keneen man man man animatrice la mais xalamaluma Sonko nii keneen keneen ak keneen nii rien bu fekkee ci biir débat politique Walfadjri moom loolu la ci gis mais na leen ko wax ouvertement wala mu citer nit ñi nommément loolu mooy courage. mais doo jël ñëpp euh, wax leen li nga leen. am na ñu naan Walf dañ ko war a yóbbu ci yoon dafa accusation la def est-ce que noonu la. mu ne ñu ne Walf da ko yóbbu ci yoon parce que accusation la def. waaw mais mais mais xalaatam la wax mais keneen ci faj Walfadjri mën na génn waxaat xalaatam tamit. xalaatam la wax dañ ko koy nangu mais li mu constaté peut-être moom moom la wax mais nag biir Walfadjri gii. ñii eh, animé débat politique yi parce que kii di Sonko di politique donc ñoom moom bu leen bëggee tudd na leen cité nommément loolu mooy dëgg. d'accord te bañ a tudd groupe bi. non même pas groupe bi sax mënul ñàkk tudd groupe group bi la attaqué parce que dafa cité ba ni animateurs yeeg comédiens yeeg ñëpp la wax. d'accord ce qui veut que ni bàyyiwul kenn. tooñ baaxul. tooñ baaxul mi ngi noonu alaaji mm-hmm. euh, dégg naa ci turu comédien de kër gi bu ñu waxoon naa ko kii ci suba nee naa ko bu ñu defoon un milliard ci lettre. yóbbu ko Walfadjri jox leen ko comédien ba fa nekk. sa loxo lañ koy teg euh, voilà mais mooy seen <laughs> noo gisee Aysatu ak ay propos ci kër gi waaw xam nga ay Aysatu de hmm. dafa jugé nit ñi ci boppam hmm. moom dafa xool ne man nii laa mel nii la nit ñi war mel hmm. donc bu may wax ci nit lii laa ci bëgg kon ñii di wax ci diw lii lañ ci bëgg maanaam dafa natt nit ñi selon moom boppam. waaw parce que tamit euh, boo arriéré tuuti taarix wane na lii ma la wax ne la ay doxalinam la jugé nit ñi. Hmm. waaw parce que doxalin yooyu sax defe naa ni boo xuusee <coughs> waaw xam nga man damaa fekk quoi tamit xam nga moo tax moom na mooy tuddi wax parce que am na yoo xamante ni bii hmm. fekke nañ quoi waaw parce que Aysatu Aysatu yàlla dimbali na ma. Hmm. laataan muy wax ñi siiw hmm. euh, laataan muy siiw man siiw naa hmm. waaw xam xam nañ ma te hmm. ko si kon donc man moom euh, ancien laa ci <laughs> li nga xam ni mooy mbir mi xam nga li xew waaw donc xam naa li xew ba tax na bu àttee nit ñi nag solo moom ni mu mel man dama koy wax ne ko dafa amaat beneen mbir bu mu def daf ne ñi nga xamante ne bii tey ñooy déglu Walfadjri ñi ñoo nekk Walfadjri bu Sonko faloo ëllëg. ñu nekk ay milliardaires. waaw maanaam kon moom dafa dégluwul sax Sonko parce que bu déglu woon Sonko du wax wax ji muy wax. parce que Sonko waxut ne day séddale gato bi. defe naa ne Walfadjri Omar leef na léegi taarix bi bu fekkoon ne pàccoo gâteau Sidy Lamine romb na fii mu ne. béti bi yàgg naa toog réunion dégg sii di di jaay ay bienam di fay nit ñi kon paacoo wutoon mhm. bu fekkoon ne mi ngi doon jot wàllam ci gato bi te président Macky Sall mii bi muy falu ñëpp gis nañ taxawaay bi bu élection yooyu amee tey eh, ginnaaw sunu borom. ci siit Lamine la ko yàlla jaarale. Mhm. parce que élection yi demoon nañ ba Obasanjo bi mu ñëwee. Alioune Tine nag ñoo ñëpp ñuy proposer naan est-ce que duñu may Ablaye Wade trois ans mu yeggale mandaam Mmh. Sidi fii la organiser plateau. Mmh. boo xam ne président Macky Sall nga fa woon kii Ousmane Tanor Dieng fa woon mmh. Abdoulaye Bathily Moustapha Niass tugg ci téléphone. ñu daa taxaw lànk li nga xamante ni mooy mbir mi Sidi xeex ci xeex bu am solo. ba li nga xamante ni bi mooy mbirum rapport boobu ñu mu ne Obasanjo du moo ñuy jàngal démocratie bi ñu yàggee voté yàgg na. moom putschiste la. kooku du mooy ñëw di ñu jàngal démocratie Sénégal romb na foofu Obasanjo takkaati bagaasam dem xam ni fii doxul mm-hmm. kon tey bu fekkoon ne kuy cëru la mm-hmm. mënoon naa jotub cëram waaye defe naa ne ci nguuru président Macky Sall la Walfadjri gën a xoox mm-hmm. que yeneen nguur yi te li defal président Macky Sall waaw te li mu defal jàpp ma ni defal na ko les autres donc yooyu yëpp dafa nekk ay mbir yoo xamante ne bi boo xoolee nekkul ni loolu am Walfadjri dafa am lii ñam bu muy doxee muy kàddu ñi amul kàddu kooku nag mënoo ko nekk ci façon état yi ñu yor mhm. di neex état bu fekkonte ni bi sax état yi gënoon nañu am esprit bu ouvert dinañ xam ni Walfadjri allié bu baax la mhm. ñu war koo gën a jàppale mhm. donc ay satu fi muy waxee moom dafa natt nit ñi rek selon moom ci li euh, ci li mu ne waaw parce que nag Aysatu <laughs> xam nañ bu baax baax yu baree bari yoo xamante ni bii tey euh, bokk nañ émission. Mm. <laughs> invité yi di ñëw. Mm. am na lu bari loo xamante ni bii soxla wut euh, ngay wax dara waaye daal na xam ni yàgg nañoo bokk émission. Mm. maa ngi nuyu caamaas. bu baax. <laughs> waaw caamaas xam nga xam la. maanaam daanaa gis daanaa gis ay jamono boobu ñëwagul wàll. ataaya ndox mu tàng jër nga yor kee yor ndox mu sedd <laughs> ndox mu sedd bi nag lu ko war a xamut maa ngi nuyu caabaas caabaas caabaas boo ko nuyoo dee xam naa ni ree caabaas ba ngay ree xam naa waaw mais en tout cas daal na xam ni kon daal kon daal mu xam boppam daal ni nga xam ne lu mu fi wax rek waaw na na na na wax ay waxam euh, bu fekkente ni bii moom ci jëmmi boppam dafay ñëw pour wut féete man jàpp naa ni li ñuy wax ci Ousmane Sonko euh, ngëm-ngëm la mm-hmm. Ousmane Sonko yàlla def na benn yoon laa ko mës a gis fii ci Walfadjri mooy bi mu fi ñëwee bis boobu lañ mës a lañ mës a gis. te laajte. waaw bis moom moo ñëw ne ana Sa Ndiogou. voilà waaw bis boobu lañ mës a gisee. Euh, defe naa soo xaw ma kan si ne ma ñëw ma fekk boobu maa ngi kii ma daa dee ñëw fekk leen mm-hmm. bis boobu la ñu mës a tegoonte bët boobu ba gën ni defe naa ni eh, mosuma yëkkati téléphone kii mais nag dama gëm ni alal moom lenn la hmm. bu fekkee ne bi Omar mii moo ngi am weer wu dee un million hmm. te ñun ñi yoruñu dara saa yu ñëwee di ko solliciter suñu problème réew moomu doxut hmm. waaye boo amee kii am kii am kii am ma am Omar am la mu am dana ko jariñ dara dëgg la parce que ñay ñëw di ko solliciter dootuñu ko ñëw di solliciter parce que am nañ pour man Sonko loolu la woo sénégalais yi loolu mu woo sénégale yi nag sénégale yu bëri retrouvé wu ci. nit ñi daal ne paacoo bi ñuy paacoo alal réew mi na dakk mhm. parce que jox la ne la liggéey ndaw ñi liggéey defoo ci dara ba ndaw ñi mujj gi di jël géej gi loolu kenn bëggu ko ñu ne faju ngeen dem wutali France sunu plateau santé yi doxut loolu baaxut mhm. ñu ne insécurité bi am ci réew mi ñu gis ni recrité wu ay takk der yoo xam ne yooyu tamit baaxut ci yooyu nga xamante ni bi nag teg nañ ko vraiment mooy li nga xamante ni bii tey moo tax nit ñu bari eh, di wax ci kii te ni ko ma jigéen waxee sànq saa yu xëyee moom suba ba ngoon mi ngi wax ci sonk moom nag xam naa nag moom day ciy wax ngir vie ak ay kii moom loolu la ciy waxee. parce que mm. dafa xam ne bu waxee xam nga booy paaka ñaari. waaw si boo waxee lu baax ñu. nee na bu doon wax ci Sonko day am 2 millions. de non non non du am dara. ci àdduna est mas naa am loolu. mas naa ne ci vidéo bu am 1 million du jaamu dara yooyu ci àddunaam su nekk ci ci vidéo boo xam ne am na un million de vues. dem maa ngi dégg maam Birame Wathie di ko wax ci keppaar gi dañ ciy juger journaliste ak nitu média yi ni en général te dañuy juum parce boo xoolee ku am jaar-jaar peut-être ki doog a door léegi dina comprendre li may wax ni mais boo fekkee jamono bi Macky Sall di nekk opposition ñun rajo ñu nekkoon man dama doon def émission politique ëttu politique. Mhm. dañuy waa PDS dama doon ba jàpp ni euh, yow da ngay liggéeyal Macky Sall. waaw fekk boobu moo nekk dans l'opposition. yaa ngi gis man benn ministre PDS bu dëkkoon ci banlieue mën nga ma saaga ndax maire nga am ku ma invité woon non maire Pikine la mun naa ko tudd Pape Sagna Mbaye boobu mu ngi ci opposition bi. Mm-hmm. bi ma ma message saaga ma. li ngay wax nii ma dama ko tontu ma ni ko. Hmm? danaa leen bàyyi ak Macky Sall boobu ñi ngi jege deuxième tour ma ni ko bu Macky faloo rek li jënd seen affaire quoi mais man du ma la tontu ci saaga te pourtant def moo ko dara. mais moom ci xelam dafa jàpp ni. saa demal waa après. non yeggalal waaw yaa ngi gis bi nga bi bi ñu nekkee Rewmi mën naa wax ni émission rajo bi ëppoon doole ci man yow xam nga émission bi. Assane que boobu tëddu dara man permanence PDS ak rajo bi mën nga ko dox te man mosuma dugg permanence PDS. mais les gens pensaient que man dama am yenn lii alors que Karim moo nekkoon actualité rek. tey jii foofu la Sonko toll rek depuis deux ans Sonko moo def actualité mën na am un keneen daf fi ne ñuy wax ci keneen mais ku jàpp ni ñu ngi wax ci Sonko parce que Sonko lañ loolu ñàkk xam ni ñu la man bi sama bàyyi jugee man ki amul benn patriote bu ma jaale si. wala ku mm. bokk mel man mais man ki ki ma am mu nekk sama xarit mais parti au pouvoir la bokk ñëw sagal ma. te loolu ñu bari xamuñu ko te pourtant bu ma toogee fii day mel ni seen opposant des fois dañuy jaawale liggéey bi ak nit ki. ki waaw. alaaj la bëggoon doole. dama ne ko masa jamonoy Ablaye Wade dem naa fii foire benn waaye ne ma yéen da nag contre ab Ablaye wu daal moom nga gis ni la meree di la wax ne la ay Macky Sall ngeen àndal ak et cetera jamono yow daa fii foire. pour te dire que ni nit ñi ñoom ci seen jëmmi bopp mën nañ la wutal ne fii nga féete fii nga féete mais yow daal nekkal ci li nga xam ne jàpp nga ni lii mooy dëgg bu fekkente ne bii moom man gis naa ci penc bi son yi bu mii tooñu Omar ma gis ma am ma am yaqin ne moom kat kii kat lii nga xam ne moom lay kii tooñu ko et pourtant son bu mii ñu ñu jël ko di ko teg teg joo xamante ni bii kii mais bu yàggee. Mhm. booy défendre yenn yi. munuñ maa gis bërki Dembo Ndiaye Mame Mbaye ñaar taxaw wax wax ju ñaaw ju ne mu wax ko Ousmane Sonko xëy na day yàq sama der léegi yow boo ñëwee analyser ne ne kii li mu def jaaduwut mhm. parce que lii ak lii teg ne man li mu wax kii kii waxu ko ko ñu ne la da ngaa far ak diw <laughs> ah. day waar de. quand même waaw mais dem fii leen ko toog euh, fii lañ ko teg ci comme ni ni traité nii ni lañ ko traité pourtant pourtant ku ko bëgg lan ku ko fonk lan ku ko yëg lan te nawloo nan ko mais bi mu defee actualité dañ ci wax li ñu war a wax weesu ko ci nga xamante mais man Pape Ndiaye durant ñu tëj ko ci am na benn jamono mais samay statut ak sama sax profilu kii te man li may jël beneen image di ko def ci sama photo kii WhatsApp bariwul mais moom dama ko ci defoon mais démb bi actualité laa lay Pape Ndiaye. tey wax lu xam après Omar mi wax fi naka sudut noonu fii koy teg suba suba son fii la ñëw teg <laughs> wax fi naka sudut noonu fii la ma gars yi di teg ci plateau parce que on a un ah, parce que loolu mooy. te loolu mooy dimbali nit parfois. parfois il faut dimbali nit ki. Ah. d'accord waaw tey jii mën naa toog fii wax walla ma dem fële tey jii bu ma demoon fenn lekk fa xaalis. ñëw fi bëgg leen a orienté mais du ngeen ko dal am déet euh, fekk man maa ngi lekk xaalis ba noppi naan woy nii naan na leen na leen mais kan moo koy nangu fii ngeen di taxaw ñaat dama fii ci kii plateau. des dana ah, war a respecté naa ko moom mi ngi doxe ni mu bëggee est ce nit dafa mës a toog Walfadjri ne Aïssatou ni muy doxee du noonu. dañ ko respecté bàyyi ko mu jël ñu boppam. mais li ñu ligne boppam boobu mu respecté ñu respecté ko kon na respecté. ñeneen ñi seen ligne daa am ligne non non man non. amul ligne. ah, ah xanaa booy wax da wax koo xam ni xam na ay. moom amul ligne benn xam rek la mm. nga toog fii la fi ñëw def la ma wax la ba kaa jox la benn kii. fii la ñëw macha allah xam nga Aïssatou man fi ma ko fi ma ko kiiwee fi ma ko mere ñoom bétti ñii ay ñoom caba xam nga macha allah yàlla dafa def ñoom dañoo jongo ma mm. lu ñu sol day. day jàpp. ay su mer leen ci sa ci ci jongama bi ah. <laughs> ñu jongama. ah parce que dañoo jongama. boobu lu mu doon kaas. ñoom bëtee jongama. neexa solo billaay ak ak caba barke alxuraan. Ah, lu tax ngeen jongama li may wax bëtee ngi nii caba xëy na du ma bàyyi ma fenn. barke lay lu tax ngeen jongama rek. bu ñu sañsee ñëw sax du bëgg ñu def plateau bi. xool ni nag. c'est parce que man ma bétti lan mooy secret. ah parce que. barke ah, ah, nii. wax la ma loolu yàlla laajal Moodu. bu ñu wàccee nga laaj Moodu. barke alxuraan. la ah xanaa booy génn télé bar nga ma def. ñoom bétti kii bu ñu ñëw di présenter plateau. sol nañu kii bu ñu ñëwee fu ñu gën a jonga maa xool bu gën a. duñu <laughs> <laughs> duñu loolu. duñu loolu duñu kii. billaay aywa. yàlla mën na ko lii may wax nii. <laughs> waaw leer na ko pour du pour télé pour ko jox émission lu mu kii day sañse. waaw. ayca waaw. kon li may tëjee rek euh, <laughs> Adja xam nga des fois bu ma nee nit euh, du waxkatu dëgg fi ma koy teg man duma ma attaqué nit ñi du waxkatu dëgg. mais bu ma nee nit waxul dëgg rek mooy bu duggee ci man ci laay xamee ndax waxkatu dëgg la ak waxkatul dëgg Sa mii dañoo yàgg wala boog yàgg kuñ sax cinq ans du yàgg ñun dañoo gaaw damaa yàgg ak nit cinq yàggul mais durant li ñu ànd su ma seexloo yenn alal yi ak yenn jëfin yi moom la bu ma demee reportage bu ñu ma joxee benn yoon lañ ma mës a jox paas boobu moto laa yoroon ma ne ko non non bu may ñëw Sa jox na ma paas kon loolu bu amee nit toog ni ay diw diw leen di jox xaalis da ngay xam ni kon kii li mu daan wax lépp ñun sooy bu dagguma la sax balaa ngay tëj ñun ñun sud lamine comprendre yàlla def na maa ngi lay wax ne nag Walf gi ñu ngi fii bëgg yàgg mhm. wax dëgg yàlla macha allah mais dama ne la ñun bi ñu ñëwee di toog mhm. Sidi Lamine na sama lu mu ñu doon wax seen liggéey bu leen ci fay bor bu leen ci leble bor gis nga képp koo xamante ni moo tax ma ne fu ñi fi jamonoowul ak Sidi Lamine amuñu chance amuñu chance bi mooy am na valeur yoo xamante ni daf ñu ko doon inculqué yoo xamante ni tey jii nekkatu fi de mm. mais bés bu ñu demoon tey ba di ko def wala suñu xel nekk ci dinañ ko xalaat moom jëmm jooju bien que du suñu yaay du suñu papa mm. mais wax nañu yedd nañu yar nañu également ci àddina ci dara yokk na ko ci suñu yar d'accord waaw ñu koy ñaan yal nañu ko yàlla fayal kon boobu mi ngi noonu di ko wax ni ko del wax dëgg kër gi ay gor ñoo fi nekk mhm. ay jàmbur yàlla ñoo fi ne ay borom kër ñoo fi nekk te jigéen nga yaakaar nga ëllëg teg société wala teg dara ab wala dara nag doo ko tabax ci di sosal ay nit wala nga dugg ci ay gor di leen wax naka sudul noonu ñii ngay soskal ëllëg kenn ku ci nekk muy Sanjoogu muy Moustapha muy Maam Biram ëllëg mën ngaa soxla leen dara ci liggéey bi ñu jàppale la parce que àdduna dafa gudd tànk léegi nag ñooñu boo leen sosalee ëllëg nga soxla leen comme yéen bokk benn milieu mën naa amu doy waar ci maa ngi nuyu këram gu kii noonu foofu gars yi nekk ci kii am boobu noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax sang bi Diop li nga indi amatina solo en tout cas ku ciy wax rek na nga wax te yàlla rek tax nga xam ne bés a ngi ñëw di nga layoo sa ndeyjoor bii di nga ko njëganaayoo buñ ko doxalee noonu rek mu baax mais sosal ay gor loolu baaxul li sama waaja naan moytul tooñ gor moytul tooñ ku la tooñul loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi leen di remercier bu baax a baax yéen ñi ñu bokkaloon plateau bi remercier du côté de la régie El Hadj Modou Diouf ak Abdou Top Ablaye jàlloo sëñ Fallou ñu ngi lay ziar bu baax di remercier également ñoom ah, Assane Mesere ak logistique bi yëpp nuy nañu leen bu baax jox leen daje lundi incha allah ci kàttanu yàlla. moom sa bopp moom sa alal sa dund ak boutique solution